ginnaaw ñu bàyyi mu nuyoo ba pare ñu doog a dugg si waxtaan bi bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah suma salaatu wasalaam ala asfil mursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa kiram ñu ngi sant yàlla di julli ci yonentam di nuyu mbooleem mbokki julliti ci jublu ci leeral ci mujj gi loo xam ne daal day laaj soo ci xamee dara nga leeral ko si loolu la ñu bëgg a jublu pour wax ci li ci yàlla wax ak yonent bi pour ñu xam naka la war a demee su ko defee jullit bu nekk lislaam ñor la di nga xam si ngay taxaw incha allah. macha allah macha allah waa sëñ bi ñu la laaj tey li nga xamante ne sii mooy aaxiru zaman ku nekkee a ngi woote dem na sa bu ñu naan ñoom ñooy yonent te yàlla wax na ci alxuraan. ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tëj yonent yi ginnaawam yonent dootul am léegi lan nan nga gisee loolu ak lu waral loolu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lasi xalaqa samaawaati wal arda jàlla sulumaat noor suma la si naka fa rabbi rabbim yahdiloon wala si xalaakum min tiin suma ada ajalan wa ajalan musamman indahu suma antum tamtaroon waxuwa laaw fi sama wa fil ardi yaxlamu sirrakum wa jahrakum wa yaxlamu ma اللهم صل على سيدنا محمد خير الورى رسول على آله وصحبه وسلم تسليما لولو غلاج لي تخ مو يومبو موي يوننت بي واخنا لب te jamana bi ñu nekk bu fekkee yàlla mo waxal bopum te yàlla nak dafa jitu asaman jitu suuf jitu lépp lu am yàlla du mbindeef mo bind mbindeef yi Euh, yàlla du kuy wax jaam di seet li mu wax mbaa muy wax yàlla wax loolu yàlla def ci def si leçon ci alxuraan wane ne iblis li ko yàqal mooy yàlla def ko moom wax mu wax muy beew rëy na ngir la yàlla digal xaw na ko jomba defal ki mu ko digal ci moom ndax fekke na cosaanam yàlla dajal loolu muy rëy ak beew dindi cër booba yor na cër bu mag jaamu na ñeent fukki junni at yàlla ba waaye cër ba dafa deñ keroog ba set lii dansé yàlla wax ngay wax foofu la ko wane ci alxuraan mooy iblis ñaati at la am ci àddina ñeent fukki junniy at am na ko di ko jaamu yàlla ba doon borom cër si malaayka yi sax ba ñu diglee mu bokk ca malaaka ya fekk moom si jinne la ko yàlla génne du malaayka waaye jaamu yàlla mayoon na ko cër bu mag ñeent fukki junniy atam ya bés ba yàlla joxoon ndigal ci ñu si jootal aadama muy seet dellu sa teg ne maa ko gën ndax yaa ngi ma bindee safara muy ngëneel moom suuf nga ko bindee muy di seet li yàlla dogal maa ca gën am li mu dogal ma gën seet ba mu seet yàlla jàpp na ne moom dafa rëy ndax waroon na yëg yàlla ba fàtte la muy yëg loola ba fàtte yàlla muy rëy beew ga mooy yàlla wax mu teg si ne man sax maa gën ndax maa ngi mu bind safara bind aadama suuf muy beew ñaar yi la boole li tax yàlla def ko ci alxuraan nag mooy yonante bi moo mujj ci yonante yi benn yonante du am gannaaw ndax euh, buñ la laajee temps bi di woote na yonante ak di wax na waroo sori ndax alxuraan bi boo wóoloo yàlla yow wóolu na moo yónni nga wóolu yonant bi wóolu na téere bi wax yoon te sax newu ca waxu yàlla la te yàlla moom lépp jiitu na nit jiitu jinne jiitu lépp moom yàlla ñu laaj la yow doo jël ci alxuraan bi nga xam ne yaa wóolu na mooy téere lislaam moom la yàlla wàcc si ki mujj ñëw maakaana muhammadin aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi waxaati mi nabin wa kaana laa bi kulli seen alim yàlla mu wax loolu parce que eh, eh, xew-xew ba xewoon ba tax mu ne du bàyyi kenn si yéen ku ne xam na ko ci sëy na bu bi mu meyoon Seydou te yàlla def sëy ba tas si ndigalu yàlla ak mbiram ba pare ne yonante jëlaat ka ba ñu wax nag moo leen du bàyyi kenn seen góor ñi li mooy da ngeen seet ku mu jur am da ngeen di seet xam nga la daloon Iblis xaw a ñëw da ngeen di seet moom ku mu jur am da ngeen di seet ne maa jox ndigal moo tax mu ne du bàyyi kenn seen góor yi walakin rasulullah yi ndawal yàlla la waxaati mi na bii na nag moo tëj yonente yi waaw yàlla nee na moo tëj nga ne jullit nga wóolu nga ne borom asamaan ak suuf bii moo wax nga ne jullit nga war a ni mu tànn yonent bi yónni ko war islam bi mu ko jox wara a wóolu téere ba lam la ca wax mooy yonent dootul am yàllaa ko waxal boppam xaatim mooy kuy tëj waxul sax xaatimul mursalin ndax bu ne xaatimul mursalin day mel ni dañ naan 313 yi sila fukk ak ñett ak ak ñii na yeneen lim waaye trois la yàlla na xaatimi bi ina mooy kenn desatul téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junni yooyu ñuy lim da yàlla dana bi ina pour ñu bañ a desal kenn mu ne ñoom ñëpp kii mooy seen caabi yow lu nit di woote yonent nga di ci wax sax dafa warul da ngay wax li yàlla wax jullit yi yeewu xam ne kii wax waxul dëgg ndaxte benn téere lu ñaaw moom bu deb yonent la ana lu ko jibril andil jibril ñëwul andil ko benn aaya sañu ko yorul leen kon bu dee yonent la te alxuraan bi ngeen xam ne yàlla nee na mat na sëkk ba mat ba alxuraan ba matee ka ka yàlla doon wàcc ci moom ñibbi la dul amati droit ne da ngay doon yonent te yonent balaa ñëw dafa am tegtal ni muy deme way jur yi melokaanam yu bari ba sax bu bu Euh, Baxir euh, euh, ca Saam si ndawam la jàng téere yi jiitu woon yonent bi xam ne kii mooy ki ñu doon séentu te booba mu ngi nekk ndaw mu ne leen nag moytu leen di ànd ak moom di wër ndaxte ñii nga xam ne yàlla dimbal na leen ñi man jombul ñu añaan ka li mu yor fexel ko bon da ngeen koy bàyyi da ngeen di bàyyi moo abo taalibin ngeen génn ko ci loolu jéem ko saasel laneen waaye wóorul ndax kii mooy ki ñu jàngoon kon moom balaa ñëw sax dafa am tegtal dégg nga mu ñëw yàlla gën a leeral tegtalam ci ay jëfum ci jëfum melokaanam yi mu ni mu juddoo moom ak bi mu juddoo li xew ak bi mu wootee ak ci biir woote bi xew ba ci jeexaatam ba ni mu jeexale téere téere ba moom mu jeex téere ba jeex maanaam yàlla teg na risaala bi yóbbu ko yow nan ngay jële ku judd fii xamuñu lu mu doon sax amul ben dalil bo xamne ben yonent wax na te sayyidina muhammad ku yàlla may wax nga ko ku ne yàlla may tataba tabaa mom ma madratu min rusi ila basarat xawmaha bikal anbiya amul ben yonent bo xamne dik nga adina te waxone yonent baa ñëw te bimu ñew ñëwee ni nga ko jàng woon yëpp dafa leer yow nan nga yàlla préparer ku mel nonu jital ay nit ñuy wax mbiram ay yonanta di ko jotale seen njaboot. ñu def ko seen i téere ba bi mu ñëwee bu xayru boobu ñuy wax di ñaan baxiir ba mu ko gisee la xam ne kii ñëw woo ko da ko woo ci biir di ko laaj di xool tegtal di ko laaj ba mu génne Abo Taalib kii saase leen doxalinam ndaxte bu ngeen di wër ak moom ñi mel ni man yàlla dimbali leen xëy na mën nañu ko xàmmee booba la bàyyi euh, wër ba ñu doon wër di def commerce bi moom mu féete ci càmm gi. Moustapha Mouhamadul Amin. Euh, nit warul sax di fo nga di koy jàppale ndax boo nab yonente nga yow avant nga ñëw ban dalil lañ la waneel bi nga ñëwee fekk yàlla mi moom asamaan ak suuf nun julliti noor ko wóolu comme ni mu nekk yàlla wóoloonu ko noonu parce que bu ñu wóolu woon yaa moo tax yàlla ne nanaa sa kaano eh, nanaa soo kaano bi ayaatina laa yooxi noon naa sa kaano bi ayaatina laa yooxi noon nee na nit ñi dañ dem ba du ñu wóolooti sama bi ma door a génn ki may génne kon même Mahdi yu bu fekkee day ñëw dafa am nu mu demee dañ jàng lépp moom it parce que yonent da may jël si jikko ak jëf balaa ñëw dañ koy jàng alim yi xam nu muy demee xam bu ñëwee lu muy liggéey xam nan lay lan la fiy fekk lan lay dindi si penku ak saw lu muy yilif nu muy mujjee kan la fiy dajal yëpp lañ jàng mais Mahdi yu boobu doo ñëw dafa am tegtal doo ñëw rek na man maay Mahdi yu mu mu sotti manul nekk dafa am tegtal yi ko jiitu tey li gën a wér mooy ki yàlla ne moo mujj ci yonante yi moo joxe tegtal yi gën a woor ci mahdi yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni muy demee yëpp yonante bee ko wax ba mu jeex te bu dee yonante dañ jiitoon di wax yonante bi moom yonante bi moo jiitu di wax di mahdi yu doo wax rek na mën a mu nekk mënul nekk mënul nekk macha allah papa. waaw li nga wax nii am na solo te leer na it. kenn nekk dootul nekk yonent bi. sallallahu alayhi wa yàlla nee na tëj na ko si yonent bi. Mouhamed mm-hmm. Ibn Abdallahi léegi tey àdduna bi gis nañ ni mu doxee ñaaw tey fii bëri na papa. Mm-hmm. lu ne nga gis nit ñee ngi sàkku jabaru jàmbur yi mhm. ñéew a ngi sàcc mhm. rey bi bëri na mhm. léegi feebar yi tamit bëri na waaw ñu lay laaj bu fekkee ak góor jigéen bi yëpp ñu lay laaj bu fekkee yonente bi waxoon na ci dara nga dimbale ko ñuy seetaan waaw loolu moom lu am solo ndax moo indi sax liy faj coow yi li koy faj mooy yonent bi rek lañ mën a dellu xam nga ki yàlla jiital soo ko jiitalul it yaay dunda dund wereyaan rek yaay sonna yaa dundee were yaan te boo dee dem jaana ma manuloo weddi yonent bi dugg àjjana parce que yàlla mi moom ajana moo ko yónni te yàlla day tànn te yàlla amul conseil technique diwoo koy wax ak diw yàlla amul kenn kotiim ba muy tànn yonent bi di ko def li mu doon di matal ci moom wax ka mu leer nañ tey wax na ko ne yónniwuma la lu dul su kuy nit kenn desul yaay seen yonent wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan li naasi basiran wa nasir walakin aksara naasi laa ya'lamuun yaay mbooleem yonente nit kenn desul yéen ngi ñu jàng alxuraan ba pare ba ñu wóolu yàlla événement yi am tey nag li ko indi mooy amul lu ci yonent bi waxul ndax mooy dernier yonent manul ñëw ba suñu jamono xamu ko kon day mel ni des na beneen yonent moo indi ba muy dund mu wax ñun tey fi akri samaan li xew pour ñu xam ne bu keneen doon ñëw du mën a nettali akru samaan day yem fa mu yem kii ñëw mottali mais li nga xam ne moom mottali yonent yëpp mooy ba fi ñu toog lu xew waxoon na ko moom lu yonent dégg naa dajjaal ñu koy tudde benn benn kii benn euh, jëmma bu yor benn bët déedéet déedéet man gis naa keroog ñu invité fii ay gars ci télé ñuy wax def débat pour affaire ñoo ñu woote yonante ci boori mm-hmm. mais euh, ñoom bu bu ñu bëgg bu ñu toog ci télé di leeral te li ñu yor matul nañu bàyyi loolu diina kenn du ko fowe mm-hmm. yonent bi dane sa yakunu fi ummati dajjaaluuna kasaabuuna du kenn du dina génn sama xeet bii muy jullit yi nun dajjaaluuna ay dajjaal saytaane nit kasaabuuna ñu mën a fen nee na sax xaribun min salaasin dañ dem ba jigéen sax li mu fanweer na moom day wax lim xam na lu mu lu mu tuut lim bi dina am bon bu nee salaasina dina ko jéggi sax mais il faut mu mat salaasina من كلهم نجس أمان رسول الله وأنا خاتم النبي إن لا نبي بعدي لا نبي بعدي من يوم يبلغنا يوتنا يننتلين كمان مايكي مجلي الله أمول بنا يننت سما جناو يونا جانغ أديس بابو جانغ القرآن ما كان محمدين أبا أخذ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي كي يالله لما وقت رسول الله نلاقي وابنك عندي أنا وقت دجاني يرنا خم خم باكل دوتو تور أقدر إياه tur ak daraja ngi yem ci Seydina Muhammad dootul am moom moom tur moomam daraja yàlla ku mu tànn yow a yonent bi la yàlla tànn mu ne woon loolu day am yow nga dem ba gis ñu bari woote yonent doo dellu ci addis moom la yàlla tànn mooy sa kilifa demal déglu waxam nga wax ko nit ñi mais doo jéem a jaay xam-xam ba da ngay gëlëm li nga war a wax mooy la yonente ne woon da am ñi woote yonent te man may ki mu jël yàlla laa nabiyan bax di ab yonentu du am suma ginnaaw boo wooloo yàlla woolu ko moom Moustapha da ngay saxaw foofu doo xantu wala wax xam wa maa yantiqu anil hawaa doo xa bànne ko ba kenn pourquoi nga bàyyi ko fa di wax ay débat yoo xam ne mel da ngeen di masla diina bi kenn du ko masla ak nit nit moomu ko yàllaa ko moom dëgg rek ina wax dalaay xaqun dëggu yàlla bi dëgg la dig bi kenn mënul tee mu am loolu moo indi mu ne woon di ngeen dem ci mujj jamono sax ngeen gis waa euh, jigéen di dundaat ci boppam mooy ñiy jaay seen bopp ndax ba génn waa ji nag bi lekk ci poojam daf ko ne loolu jigéen la day dem di dund ci boppam di jaay boppam di dund am ku gis benn teen ñaari teen bi am ndox bi am ndox mhm. am bu nekk ci digg bi amul dara mu wax ko ko mu ne ko loolu mooy mujj jamono day dem ba nit ku am di dimbali ku am ñuy jéggi ki amul yonent bi ne leen dina dem ba kersa dañ ci jigéen moo tax jigéen ñi sol loo xam ne benn góor ñi mañu ko Moustapha la yàlla yónni soo bëggee wax lu leer nit ñi xam ne lii du mbett yonente yëgaloon na xeetam yëgaleel xeet bi ni leen yonente yëgale ndegam da ngaa jàng mais bul teg foofa di andi lu nit ñi dul trouvé lu am wax na ko ndax mooy dernier prophète kenn dootu am ginnaawam moo tax mu wax bu waxuloon suñu jamono nag day mel ni des na baneen yonent li wane ne du am baneen yonent mooy mu wax suñu jamono nun mu demoon ba ne nañ fi yëkki ñeent mooy nañ yëkki barke ci suuf nañ yëkki yërmande ci xol yi nañ yëkki mandu ca atte ba nañ yëkki kersi ci jigéen ana ana léegi bu njëkk ba million ngay dégg léegi milliard lu mu doxal dara la doxalul tey la crise bi tar tey joow li bari tey la yuuxu yi bari lan moo tax doo xantu million nga doon dégg déggatoo ko milliard dara la doxalul ni nit ñi toll passé million nekki milliard noonu la yàlla defee ay milliards léegi ànd ak nit ñi mais ana njariñ ba ndax barka baa yëkkatu ko yéen ma ne dañ ci xol dañ lay liggéey loo pare ëppale la fop léegi jël li nga amoon ñu war la koo fay booleeg li ñu am. ku nay jaay doole koo xam ne yaa këpp doole mm-hmm. ah kersa dañ sa jigéen ña yow li jigéen di sol na day dox ak moom ak ni jigéen war a seere ni mu war a mën a dencoo mm-hmm. ndax li muy jur xeet bi bu dub yonente wàllu yëpp yàlla nga koy tànn génn ko ci moom mu def kon mu nekk ku war a yiw moo ñàkk a kerse kanamu maamam baayam lay solo loo xam ne loolu mooy rek bëgg ko gis say cër du waxantu balaa wax xam Seydina Muhammad mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu demee ba la ñuy mandee bari la ñuy mandee bari booba ana ana ana bi yont bi xew booba ana tey sunguf bi doro dorog bi sunguf ay pikiir ndox mi léegi euh, ngelaw mu yàmbaa bi yooyu bi na bi naan lay mandee bari bu boobaa yàlla dana leen wan yéen xeet yonent bi di di yéen sama xeet bi yàlla dana wane loo xam ne lii lu doy waar lay nekk ci yéen mm-hmm. dingeen ngeen am xasfu di ngeen am masxu di am xasfu mu ne dinañ leen def ay tremblement de ter yu bari na am waaye dina am it ay ngelaw ak ay ndox yu rey nit mu ne dina am ba ngeen yàlla xirtal leen ngeen di jumante daal di jàngal tarmim bi hijaarati min sijil saalam tara ba mu koy wax fital amul te njum yooya reyoon waa kër Abraha te ñu doon jéem a toj Kaaba njum ya leen rey njur yi safara la jógoon rey leen bi muy jàng bi muy wax loolu nag dafa wax ne euh, comme na euh, njanaaw ya jame woon ña jéem a kaaba ga léegi fital booba amul njum yu ànd ak la kon ku yonent bi salaa salaam yooyu dem bañ gis ka xala xarital jëli xeer di sànni mu jël mu jël fital yi léeg-léeg ñu rey ñëpp xam ne dañoo rey te bal reer lañu ñu lu loolu du wax yont bi manifeste yi ngay gis manifeste yi mhm. njum yi di xeer yi dox fital di dox ak leneen wax na ko ca jamonaam ana kuy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana ban yonente moo mën a nekk ki nga xam ne même sa jamono wax na la lii xew te fekkew ko mhm. junni at ak nangam nga gis ko di wóolu keneen boo yeboo na bi yonente nga defi kaaba doo dara dangaa génn dine yéefar sax la gën mhm. te yàlla nee na woon inna saral dawa bi indallah li si na kafaroo waxum laa yuminoon nee na li gën a bon mbaam gën a bon xaj gën a bon luy doxe tànk ci suuf lu bon lépp ka ca gën a bon mooy ki weddi te nee na te it narul gëm yàlla ko wax inna saral dawa bi indallah summun bukmun la si na laa yaqiloon mu ne la gën a bon ci liy daagu lépp ci suuf mooy ñu lu tëx ci seen borom te yoruñu xel boo leen seetloo yow bu ñu la woowee alxuraan addu addis addu nga teg fa li nga war a wax nit ñi defe na yonente ba naam ku nekk ay woote maxaama sa bopp nag aku rek ak daraja moo tax dañ fi teg borom maxaama bi saabul maxaama saabul rutta bi saabul ijaab Moustapha du moromi kenn sallallahu alayhi wa sallam Mamadou Moustapha Ngom nag lenn la taxawee lii may wax nii ci moom laa ko jëlee te moom ma ko moom laa toogee yàlla la wax rasulullaay la wax hmm. waxul lu génn loolu ba ma pare si ñiy mujjee yeesalal yonent sala max du yu bokk amatul ay yonent ay mujjadit mooy am ku ñëw ne l'islam bi de yàllaa ko wàcce woon ci yonent bi mooy alxuraan mooy addis ku bëgg a doon jullit na nga ko topp ñooñu ñooy am mm-hmm. mais yonent dootul am su boobaa mujjadit yooyu nag ka cay mooy max di mm-hmm. ñu bari nag xàmmeew dara max di yooyu mm-hmm. moo tax mu siiw ca ñuy wax turam di wax turam ba keroog muy génn ñëpp danañ xam ki mu doon kenn du ko werante maa di du demee noonu rek. waaw si Mahdi boobu nga génn sax. waaw dañuy gis ni fii nit ñi dañuy jaawale. Mm-hmm. am na ñu naan max di mm-hmm. ne ñoo yonent. waaw am na ñu naan di ñu ne ñooy Isa. Mm-hmm. bëgg nañ tey nga leeralal ñuy seeraan ni Mahdi bokkut ak Isa dara. boo ko ak yonent dara bu nekk ak paar la. waaw ku nekk mooy max Mahdi yu ak Isa ibnu Mariam. ak yonent bi. yonent bi ci boppam moo ne Mahdi yu dina wàcc si saam siri. kii Issa mais dana day fekk Mahdi yu moom taxaw na moo tax Mahdi yoo ko fay teeru ñu daja fa julli ba ñu wax ne moom la ñuy jëkk a julli mooy suba bu boobaa yonente nee na Issa Mahdi moo naan Issa doxal jiite nu julli jiital nit ñi nu julli Issa ne ma liqaamal la ba ka Issa liqaamalee mu ne suma yu Issa xalfa rajul min waladi li waral na du moom mu ne isaa li xaam julli ca ginnaaw góor ga sama doom mahdiyu naka lay yonent bi ne man ba pare ne muy doomam man nga doon yonent bi kon doon mahdi mais te ñoo dellu ci yonent bi wóolu ko leeralal nit ñi yow kenn mënu ko weddi addis la duy ay du da ngay wax rek addis la Moustapha la ñu war a déglu mu ne su góor ga isaa julli ca ginnaaw góor ga sama doom maadiyu moo tax kenn du jàng fu maadiyu doone yonent bi kenn du jàng fu maadiyu di jure isaa déedéet isaa kéemtaan moo ko yóbbu mu yëg ci asamaan yàlla yéege ko na yàlla ko yéege daawul naaw bañ ko bëggee rey la ko asamaan bu ñaareel sax la ne moog Yaxya ñoo fa ne ndax boobu asamaan dong nga am ñaari yonent ndax isaa day dellu wa in min ahli kitaab ilaa la yawminu bii xabla mawti yàlla sax moo wax si alxuraan nee na amul benn ahlu kitaab ñoo xam ne nañ gëm maa Isaa balaa dee te Isaa deewul kon loolu dañu ne mooy tegtal bi wane ne dina dellu si fii ci sortu nisaa yi yonente addu sànq buy dellu si nu muy demee wax Mahdi wax Isaa Mahdi yu Isaa ñëpp ñaari jëwriñu yonente bi lañu. Isa dina nekkal yonente gannaawam mais dootul doon mursal day ne nabiyun yonente gi moom du deñ mais du doon mursal ndax si diine lislaam bi lay ne di dëggal yonent bi fekk maa yi feeñ na ci loolu yàlla dogal ci moom ba mu nekk jëwriñ yonent bi jëkk li tax nag maa yi siiw mooy kiy mujjee yeesalal yonent ci suuf àddina door a jeex mooy max di moo tax mu siiw waaye mujjadit ci di yonent dem ba léegi ñu ngi am ki kay mujj nag mooy Mahdi yu dub yonent Abdalaay la wa xaadimu rasulullaay du yonent kon yonent bi du Isaa Isaa du yonent bi yonent bi du Mahdiyu Mahdiyu du yonent bi mais Isaa Mahdiyu yëpp yonent bee leen andi moo tax ñaan wa yàquloona maatee xaasal maatee xaasal wa yàquloona ñu ngi laaj ne maa maa tee xaasaal fatqi in kuntum saadixin ñu ngi yàlla nee na ci sortu sajdi ñu ngi lay laaj sajdati mu ne ñu ngi lay laaj yonent bi ne la kañ la victoire bi dëggam dëgg ngay wax nee leen yawmal fatqi laa yanfa'u llasiina kafaroo iimaanuhum wala hum yunsaroon nee leen bésu ndam ba ñi weddi woon seen ngëm dootu leen jariñ tey dootu ñu leen baal moo tax maa duy la day atte mm. boo jàngee aaya ba xam lu tax maa duy nekk attekat ولا هم ينصرون amatul xaar amul muñal amul بال il faut ku ne taxaw fi nga war a taxaw looloo indi day atte moom bu ñëwee bu soobee yàlla ñu ne nag ñu yàlla ne ko loolu ñu la laaj mu ne ko fantasir indaw muntasiroon xaaral ñoom ñu xaar moo indi max di yul muntasar xaar xaaral yow yonent ñu xaar ñoom bon lu tax yàlla ne ko xaaral il faut kon max di yu te il faut atte ba am loolu la alxuraan di jariñ si ko xam loolu la addis di jariñ si ko xam nun du ñuy yonent ab yonent dootul am li ñu la digal del wax yàlla nee na rasulullaay nee na waaye bëgg am daja amul tur ba sax yow bala ngaa bëgg ñu tuddale sa maam baa baay pour nga mën a bokk kenn bokkul Seydina Mohamed la sallallahu alayhi dëgg bi wax na ko dara desul. macha allah papa wax ji am na solo trop yow say wax dañ koy yàkkamti parce que biñ fi tëjee woon jumaa yi liñ fi wax kenn waxu ko si. ndax ginnaaw ba nga waxee la ñu am seetlu ni ba ko gars yi dégloo si lañ bàyyi affaire ñu ibbiwaat affaire yi hmm. macha allah kon tey ñiy woote Mahdi bëri na trop trop hmm. bëggoon nañ tamit nga wax ñu mandargay Mahdi ba ku nekk ku ko déglu na xam ne nit bu wootee Mahdi buñ gisul si yow mandarga yi ñu xam ne doo max di waaw lu am solo parce que lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu dimbali di innama yusxiru fi axiri samaan xurba xiyaama saati inda istidaadi fitnati وكثره سلمى وجورا وابتغاد الناس عن خدايه الله وخله الخير في الارض فيرسل خلاه لا رسول انما هاديا ومرسدا ومسلخا يسلخ به البلاد والعباده يننت بي بوبم صلى الله عليه وسلم مو كي دون مخدي موغي فنج مجي جامنا فو جيغن لول ادنا جيخ خربا خيام ساعه nee na kiris ba it dina metti nda fitna moo tax feebar bi traversé il faut kiris bi mu waxoon moom rasul lay am mu ne fi fitna bu kiris ba dana tar waa dana bari lool njubadi ak bàkkaar def bàkkaar def njubadi ñu baree baree bari ñi gën a am daraja fi mu nekk ñoo gën a ñu ëpp cër ci cër laa wax cër ñoo gën a jubadi fi mu ne liggéey jubadi rek la di seq ak nit ñi da ngay dégg kilifa goo xam ne cër bu mag la yor nga dégg ku ne moom moo waxoon. Mhm. moo defoon moo jël lii bon il faut ñu topp ko nañ ko woo ci yoon ñu loolu la ñu doon wax. kan moo jubadi borom cër ya waaw léegi bàkkaar bi nga dem ba góor jigéen ñu bëgg def yoon. loo xam ne doo jur doom. te bu doom judduwul ana militaire yeeg nangam ak liggéeykat yeeg nangam ak addina góor ak góor duñ jur. kon lu addina jariñ ban addina lañ ne. addina bu woon góor jigéen ni ko yàlla daj ndax yàlla bindal malaaka du du jur mais ñoo nu ëpp. kon manon na def mais li tax mu def góor ak jigen moy na melam góor ak jigen jur adina ñoy yor ñoy dund adina ñoy sakanal adina ñom na melu yalla la kon góor ak góor bu ñuy sëy ban domay juddu lol dafa jara soy yes gu mon gu yes gu nit ñi nekké motax ñuy ci xel sax diko bëgg nekkal bu bu sey ana adina? ana militaire rek euh, gendarme yeeg ñuy war kat yi ana sax ñun jigen ak jigen bu ñuy sey ana dom loolu jarul sori ku yalla baaxewul dara nekkul ci yow ci ngeenel luddul nga yor xol bu bon yàqu man di jema a don comme seytane ni ko yalla tudde gisunu ko ndax dañ koy deug mais man nga gis ñooñu bo leen gisse gis nga seytane gis nga seytane ma di yonent bi neena bu boba nak juba di lay bari bakar bari ba pare nak nit ñi top bidaaya moy xewtal ya bàyyi alxuraan ak addis mu ne lu baax nag néew lool fayur sulu xoolaaw yàlla bal ko waaye laa soola du yonent képp ku ne maa du yonent la yonent bi nee na dub yonent yonent bi ko jiite tax ñu fal ko moom di yonent bi nee na maa du dub yonent te min nii si man mii lay jóge du jóge ci ban xeet maa du ci man lay jóge kenn mënatul am daraja te bàyyi kooloo ci man maay kii mu jël yàlla moo tax mu ne maa du min nii ci moom lay jóge moom Seydina Muhammad waaw min wala di sama doom la it fan la la waxe loolu mu ne bu booba nag yàlla yebal ko waaye du yonent innama haadiyan nag day gindi nit ñi réeroon teqale dëgg ak neen mursidan day jubal ku ju ku dëngoon ku day defar ku yàqu woon ba yuslihu bihil bilaada wal ibaada ci maadu yi lay defaroo réew ya ak jaamu yàlla ga Seydina Muhammad moo wax lii kon mënoo nekk maadu yu tànk jaaroo fii boo ñëwee it nee na yam yamlikul arda sarxaxaa wa xarbaxaa maa di bu xësee feeñ dina bala moo nekk kañ kañ lay leen di wax nabi nee na dana yilif penku ak sawu ya mooy yilif addina arda kulluhum penku ba sawu nee na maa di daf ko yilif du deete deful loolu waaw yow ñu ne eh, adduniya tamlikuha arbaa muslimayni wa kaafirayni addina dina ko mas a yilif ñeent ñaari julit ñaari yéefar wax xaamisu juróomeel ba kan la yonent bi nee na Souleymane buxtu nasar ñooy ñaari jullit eh, Souleymane ak Sulxarnayni mooy ñaari jullit yi ilifoon àddina kulluxum mu ne ñaar ñaar ñaari yéefar yi mooy buxtu nasar ak Namruud mu ne waaye ku leen ci yilif àddina maadu yi la kon nan nga nekk maadu yi ba dee yilifu àddina nooy nekk maadu yi tamit ba dee lu bon jógew fi te dafa yam liul arda dafa ne dina feesal suuf xistan wa adala suuf si dina ko feesal yam likul arda xistan wa adala day feesal suuf si mandoog njub kama mala ati jawra wa sulma ni muy fekk suuf sa fees dalla ak bakkaar ak i njubadi la koy feesale ak mandu ak njub yow bakkaar bi am léegi ak njubadi gi am léegi kenn dangay gis koo xam ne dañ ko jiitaloon mu war a jiite nit ñi war leen a sàmmal moo jël li nit ñi moomoon ba gouvernement ba tasee ñu jàpp ko yóbbu ci kasa bi kon ñan ñoo jubadi yonte bi du koy waxantu balaa wax xam su boobaa nag jubadi googa mooy am ba pare ba ñëpp a jàq ñii di woote yonente yi moo ko waxoon ku ney woote yonente te waxuñu dëgg kasaabuuna la nee nay fenkat la ñu kabiruuna yu mag a mag a mag a mag ñoo ñuy woote yonente ndax man maay xaatimi nabin maa tëj yonente yi teet man may ki yàlla mujj andi laa nabiyan bax bax di ab yonente du am suma ginnaaw est-ce que nit ñi wóolu nañ yonent bi ñii wax laa wax est-ce que wóolu bi ba nit di woote yeneen te ngay ndokkeel ak sargal ak yónnee délégation ak di wax ci moom wóoluwuloo sa yonent comme wóoluwuloo sa yonent teew yaa ñëlee yem nabi dañ koy wóolu yàlla dañ koy wóolu dafa wóolulu moom yàlla Moustapha dañ koy wóolu dafa wóolulu parce que yàlla wóor moo tànn ku wóor jox ko lu wóor muy Seydina Muhammad mooy naasiril xaq bil xaq ana alaji mak seigne touba ñëpp dañ doon tektal nit ñont bi di ko way pour nit ñi xamne ñom ñi ci ginaam si di ko way xamne mom lañuy liggéel moy seen way yi ñoy dañ jaaroon yoon alaji mak seigne touba Ahmadou Ahmadou Bamba ak ak alaji malik Cheikh Saxdu Abi ak ñu melni ñom ci ño xamne ñi ngi fi da ngeen dégg seen lepp tagga yonent bi way yonent bi julli ci mom deugal sharia bi lolu moy mu jëddi yeesalal mustafa am mais yonent do tu am ku ko woote rek seytaane ga ak koo mën a doon te ku ànd ak yow it gis nga charia dane ku woote bi yonent gannaaw yonent bi nang la rey rey ña la gëm bilaanti saar amul muñal moo tax yàlla naan walaa xum yin sarun bés ngi ñëw du ma baal kenn dañ leen di ku ko woote dañ la war a rey rey ñi nga àndal amuñu droit def débat ndax nañ ko jàpp arab yi dañu coloniser kon bu ñu yoree suñu yoonu bopp yor suñu laki bopp yooyu affaire yi nit ak nit la du yàlla yàlla moom asamaan moom suuf jiitu fi lépp de tracé islam jox ko yonent bi nga wax ay arab arab yu colonisé ay nangam yow mel ni yow diine ji yaa ngi nit ak seq léegi dootoo yàgg yàlla yàlla day morom du moromi kenn allahu ahad sama du lam yëlit walam yulada yow mënoo am bàmmeel man mënuñu laa jur jur la nga am day am baay jël soxna am doom dee ñu xam sa bàmmeel fu mu ne nga yàlla ban yàlla Sénégal yàlla dana woon yonent bi dana woon nit ñi nañ dem ba woote ji ak yàlla woote ak yonent nububi rububiyatu ak nubuwiya dañuy wooteeg yonent di wooteeg yàlla Moustapha ma ne nabi dañ koy wóolu la mu waxoon Sénégal a gën a xam ne am na wooteeg yàlla senegal wooteeg yonent Sénégal moo tax bii am ñuy wax ay kaabaak ay nene yonentaak di julli alxuraan bi ñu koy liir ci seen làkk yooyu nga génn diine yow nga ne ca gannaaw yéefare la gën doo dara parce que ci biir diine ji ngay yàqe ki nekk fële nag mën ñoo yàqal dara mais na ci lislaam di def yooyu ay yàq la ku comme gis ngeen léegi ay e, e, e, kii sa xama lan la kii kii ni waaw da ngeen dégg léegi benn xale boo xam ne du mag sax jàngul di dal ci kaw ñi nga xamee ne dañ ne ay sëriñ la ñu te jaaruñu ci yoon toujours ngeen gis ka léegi di dal seen kaw ba pare dellu sax di di wax wax bu ñaaw di wax wax bu ñaaw sax lan moom la yàlla wane balaa max di laa taxaw il faut loolu am force la addina bi yàqu ñii woote yonent bari ñii woote yàlla bari ñii tegab jaam yàlla bari ñii tegab jaam Moustapha yonent bari yàlla door a indi kii redresser loolu le redresseur c'est le mahdi mooy ak kiy jubbanti ci arab mais yonent dene turamay sama tur boo bëggee xam kan la turam moom sama tur la yu wattu ismo ismi wa ismo abuho ismo abi turu baay may sama tur baay képp kuy jullit Abdalaay nga tudd te Abdalaay Diouf Seydina Mohamed te Maadi yi foo baayam doon jullit kon Abdalaay lay tudd Maadi yi nu mu tudd Mouhamadou lay tudd kon nag ngay door wane tournée yow Mohamed lay tudd comme yonent bi turu baay may turu baay yonent bi loolu la bi wax ah? ba mu joxoñoon sax ne ci Assane moomu doomi Alioune euh, la gise fi yàlla jaaree leeru Mahdi fa la jaar mais ci ban xel lay génn parce que yàlla noonu lay doxale dafa defoon yonent bi génn ñu ne sa siisa lañ njëkk a euh, jàppe leer yonent bi feeñ na ci siisa mais bi muy feeñ doon yonent nag euh, si àddina si Abdalaay la génne kon leer gi kañ na ci àddina leeru Mahdi noonu la demee mm-hmm. noonu la demee ndax moo tax mu ne mahdi yusbihu nabi sallallahu alayhi wa sallam fil af'ali wal axlaax day nuru yonente ba bu dikkee si ay jëf ak ak jikk lu tax l'islam mooy jikku yont bi te mahdi yi day yeesalal yont bi kon nu muy bañ a jël jikka ji ak jëf ji moo tax du mooy yonent bi islam bi lay tëral virgule ci alxuraan mu rey la te safara nga jëm doo ci doo ci yokk virgule doo ci wàññi virgule koo koy mahdi yu macha allah waaw macha allah ñii tamit dañuy wax Mahdi te xamuñu programme mu Mahdi lan la. waaw na ñoom dañoo jàpp ni max di kuy ñëw la nii rek. Mm-hmm. wax ji jeex àdduna bi tukki. Mm-hmm. te yaakaar naa ne bi am na lu mu si waxoon ci jàppum jant bi. Mm-hmm. ak uh, wàccum Isaa si suuf. ak génnum Mahdi. ci ci biir suuf ak wàccu Isaa si asamaan. waaw waaw loolu mooy uh, li indi loolu. mooy ñàkk toogal yonent bi. li nit ñi di xintewoo toogal sama baayee doonoon nangam sama maama doonoon nangam di xintewoo daraja jooyor xintewoo di gañe say yëf si nit ñi moo indi mënatuñoo toogal yonent bi ku toogal yonent bi xam li nga wax parce que yonent bi la yàlla mujjee yoon lu wax ci Mahdi Mahdi programme yàlla la xam na ko moom lim ci xam wax ko mu ne buy ñëw ni mu ko di ni mu ko waxee sànq ci mujj jamono te la indi mooy bàkkaar bu bari ba ak njubadi ga moo indi mu tudde kiy jubanti kon bu ñëwee am na lu muy liggéey mooy mooy dindi ñaari kon am na liggéey beneen bi mooy isaa yu nasilu isaa isaa day wàcc su ma yàlta fitu maa di yu fayul fay fayen wayen silu isaa maa di yu dana muy wane ne daka fii fekk mu ne isaa wàcc yuxtiru min soxrihi maa day day toq keroog ci karawu ma isaaba ay ndox parce que isaa borom kawar la buy tegu fii kawar googo nag noona mu yéege woon du sensé jëkk jëmm du sensé len na mu yéege woon ba tey noonu la mel bu wàccee moo waral mu ne dina toq ca euh, kawar ga ay ndox moo tax buy wàcc dañu ne te lay bu magay am bés bi isaa war a asamaan lay booba sax moo la tegtal ne julli suba lay doon léegi nag moom lay jëkk a day ak maadi yu maadi ne ko jiital ñu julli isaa naka mali xamal la isaa julli te ginnaaw góor ga sama doom sallallahu alayhi kon même isaa bu dikkee du nokka euh, mursal day ne nabiyun yonente ko ko yàlla nomee dootul dañ mais day nekk kuy liggéeyal yonente bi doo bokk ci islaam bi li yonente digle lay def li mu tere lay ba looloo indi diina bi mujj ci lenn ñun ñëpp ñu mën a tànn yebal ko ñu jéem a werante ci mujj jamono mu indi isaawaat andi Mahdi pour diine ji delluwaat ci li yàlla na moon muy benn ga dootoo gis keneen beneen diine islam dong bu ko defee xaajalloo dootul am ñàkk ànd dootul am lépp doon door a doon jàmm ju maase. loolu andi programme bi ndamu yont bi la mais jàmmi nit ñi la ak ginne yi noonu la demee ñi xamul programme bi nag tekk ci àddina boo amee tuuti looy si kar am lu la feeñu nga ne man la man la si nii rek yow boo jàngoon addis sax bu waaye ne man la boo xoolee yonent bi wax nga nga nga exécuté ko réel mu dee. Oh, parce que seytaane la ab seytaane nga gis du dëgg. du dëgg maa yi dafa am programme balaa dikk nu muy demee bu dikkee lu muy liggéey kenn du ci lenn lu dul xaadimu nabi l'islam bii la ñuy yeesal bañ na bu dikkee yàlla na ina naa sa kaano bi ayatina laa yoxi ni nit ñi wóolootuñu war alxuraan moo indi ci alxuraan lay delloo si kenn du yokk kenn du wàññi loolooy liggéey Mahdi kon buñ jiwaatlee ñew rek doon dara yokk julli yokk yokk wañi julli yokk ay sangu set yokk ay njappa taxawal ay kaaba yii yëpp ab seytaane la seytaane la ñu la ko wax te yit ñun yag nañu wax de Modou Moustapha Ngom dafa wax ba dem ñi naan Modou Ngom ba mu ba dem lamu lamu yoron diko dundu di ko la fi ba Mohamed la wa ndax te moy koy mujjee yeesalal macha allah waaw incha allah Mamadou Ngom ni waaw ak moom fan la taxawoo woon ci lislaam waaw kooku Mamadou Moustapha Ngom mhm. man li ma booleek moom mooy baatu dëgg bi mhm. damay toog guddi ma di dégg muy sikkar laa ilaha illallah ci benn air mhm. may laaj ki sikkar loolu fu mu ne ndaxte dafay wéetal dafa doon tawxiit bu ma bu may dégg sama xol di ko yëg may laajte ba ñu yóbbu ma fa ba mu yëkkee sikar bi ma xam ne mooma mu teg ci waare ba mu waaraatee alxuraan ak addis ba mu wax keroog ni mu leere dama jàngoon as lëf jàng naa tuuti wër naa fu bari mais la ma dégg mu wax ko keroog fu ma wër yëpp dégg ma suma ko fa dégg ma ne wa kon nag man dofuma woon ndekete dëgg bi nii la war a demee parce que alxuraan nag du ñaar bu demee ba nag ñii di jëfe lii ñii jëfe lii yéemoon na ma moom si laa jëkk a yéemu ci moom jëkk koo jàpp mu ñun fu mu gis kuy jaamu ay xamba yii xam dafa bari si nit ku boo xaritoog moom ñaare ba mu tojal la ko teqale moom delloo la yàlla baneen bi yonentaay dundam yonent rek la xam nee na kenn du sama sëriñ yonent mooy sama sëriñ ndax moo may xamal si li ma xamee ci moom laa ko jëlee benn bu set boo nangoo d'accord mu xaritoo yow ndax nee na man aw may taalibe man man xaadimu rasul laay laa kuy liggéeyal na bi laa xaadim laa jaamu yonent bi laa bon du ma ami taalibe ñu xaritoo ci yàlla yonent bi soo nangoo sariya topp ñu continuer soo ko toppul nañ la baare amoo droit bokk ci mbooloo mi amoo droit bokk ci mbooloo mu taxawal yonent bi yonent bi yàllaa ka na war sa fax jur tongul ma sobe kon kuy def sobe manul ànd ak yonent bi mu taxawal ko muy aaya mais mu def ko jëmm ku nanguwul sariya nga may ko ku nangu sariya ngeen mu xaritoog yow ngeen xaritoog yonent bi ngeen ànd kookoy Mamadou Ngom bu mu demee ba ci jamono booba mu ngi mag yonent bi dafa yuxruju maadiyu yaisu xamsa aw sit aw sab aw aw tis a maadiyu dina génn de waaye dundam boobaa mu génni juróomi at mbaa juróom-ñaari at mbaa juróom-ñeenti at keroog bi mu génnee fii dem Sine Saalum ñu fay màggal yont bi ndax moom géewam yëpp màggal yont bi la ko tudde mu ne leen maa ngi door jot ndigal ne wax leen ne man maay max diyu ba mu ko defee di 88 87 94 88 la génne wax loolu 94 mu dee yonent bi ne woon yam li ku sab ah sini na yu bu yu génnee dina ko dun dina yor loola juróom-ñaari at su ma yetoo faa mu dee su ma yu salli muslim julliti jullee ko góor gi génn wax la mu wax ginnaaw bi muy leeralee ñun ci yàlla yonent bi te dafa amoon ku yàlla may parce que la mu yoroon ci may seet naa ba tàyyi nit koy toogal gis loolu ci may bu yàlla may nit mësuma ko gis mu door a wax nag boppam jógul rek wax boppam bi mu waxee loolu mu waxee ko ñaaxar ñëw dund fi juróom-ñaari at dee moo tax ñu bari naan maa di yonente ne juróom-ñaari at lay am ci àddina dee mais nañu gën a gëstu mbaa ñu teey maa di du lu ndaw de xam-xam bu mag la te il faut nga xam di jàng ñaari affaire man koo firi de ndax bi mu defee loolu dee lan lan moo indi dee bi yiliful àddina ci boobu hmm. waaw te internet da yilif àddina kon moo wax bi wax bii te moom du waxantu gëstul ñaari wax yi dina yilifi àddina sarxaxaa waxar baxaa musta yonent bi ko wax hmm. waaw mu génn wax ne man la dunda juróom-ñaari at dee soot ñaari xam-xam yi doo ko segg hmm. juróom-ñaari at yooyu mu dee mooy andi li yàlla na wa isaabaxal xawla aleyhim axraj naa lahum daabatan minal ardi tukali tukallimuhum inna naasa kaano bi ayatina laa yu'minuun bu demee ba coow la am ci nit ñi dëggal bi coow rek la coow li lan la njubadi rek njubadi gi indi coow li te njubadi googoo waral turu Mahdi kii jubanti mu ne bu demee booba nag ma génne daaba ca coow la nit ñi nekk ndax nit ñi newoon nañu sama aaya yi alxuraan wóolootuñu ko dañu nekkoon wóolootuñu aaya yi moo tax kooku daaba ba ma génn ko ba mu ne tukkaani mu xum nag ñi xam ñëpp ne tagliim nit lay doon du doon fas mbaam la neen doon ak jur nit lay doon moo tax yàlla ne tukkaani nit booba ban la nit ka yàlla joxoñ kan la yonent bi nee na maa ahoo asa Musa waxaatimu Suleymaan daaba booba yàlla wax suy génn day yor yetu Musa ak jaaru Suleymaan mais yet ak daa ak yet beeg jaaru bi ku ko moom Souleymane dub yonent du nit ah Moussa dub yonent du nit bon nit moo war doon alali nit mm-hmm. kon boo déggee ca na yonent ba firee dana ànd ak yetu Moussa bu daa ba bay génn day yor yetu Moussa yor jaaru Souleymane wan na leen ne kii génn nit la waaw si nit ñooñu mm. kan moo ci ne bàmmeel te waxoon lu leer def ko Mamadou Moustapha Ngom moo wax lu leer def lu leer door a dem ca bàmmeel ya bés bu yàlla génnee nag daaba ba mu ànd ak la yonent bi waxoon mu firi na nit la si nit ñi ban nit la moo tax lu waay jàng jàng jàng wax ci maadu yu fii da nga koy tëb naa daaba ba mooy mooy gileem nga génnoon sa xeeru euh, euh, yonent yàlla euh, kii saalix ba delluwaat ñi naan daaba bi dafa yor ñeenti tànk d'accord xam nga lu tax maadu yu day doon lépp ndax dina yilif jinne yilif nit lépp luy njanaaw lépp luy euh, bàyyi ma lépp lu am daf koy xam moo tax yonente ne la isaa ci boppam moom maat yooyu daje waaye daf na la isaa bu ñëwee di ngeen gis euh, gaynde du mën a lekkati du du du fàdd nag di ngeen gis gaynde du fàdd nag di ngeen gisit ti tilay kii bukki yi maanaam du ñu fàdd ñoom yéen doon fàdd di ngeen gis jaan xale man koo fooye mu ne loolu day am ci boobu jamono moo tax lu yàlla bind day xam diggante boobu kii Maxdiyu kii Isaa dañu tàggat tout jox leen ndax ñu tàggat tu delloo yàlla moo tax yàlla na wa ilallaahi turjaxul umuur su boobaa nag ni mu bindoon addina moom ko noonu laay nangoowat àddina loolu mooy programme Mahdiyu di jógoon ci yàlla tout balaa àddina laa jeex tout dellu ci yàlla moo tax ku nekk yàkkamti woote man laak nii danga xamul li xew boo xamoon li xew xam programme bi xam ban ban ban natija la ban natija ban njariñ ban ban ban ban kii moo ne ci biir ban ban mbir moo ne ca biir doo ko woote déedéet yàlla du defantu addina bi ni ñu ko demee ba moom ko te yàlla moom ko ñu dem ba moom ko di daganal di araamal temps bii di nekk yonent yi nekk yàlla ni la ko yàlla yi nangoo delloo boppam mais day taxawal ay jëmma loolooy Maadi ak Isa looloo indi programme bi waaye du ñëw maay moom rek day yomb looy liggéey an sa liggéey loo delloo yàlla loo xam ne jar na xalaat yéemu léppay dellu ci yàlla force moo tax taa bi ngay dégg ko ne diw yàlla la mbaa yàlla laa mbaa nga dégg ko ne diw yonente la mbaa nga dégg ko amaat beneen téere bu dul téere Moustapha kuy daf taxawal beneen kaaba bu dul bële nga xam ne mooy diggu àddina kaaba booba mooy mooy diggu àddina moo communiqué ak baytal mo baytal mahmour ci kaw ñoo communiqué mooy digg àddina kaaba gi malaaka yi ñoo ko fondationné nga toog tey di di di di fondationné sa place naan kaaba ba pare yàlla ngeen ne du addu yàlla moom asamaanam moom suuf du addu day addu maa di day taxaw dara du ko dindi incha allah taxaw dara du ko dindi isaa wàcc fekk fi doon seedeem ñu bokk liggéey ba mbir mi dellu ci yonent dallu ci yàlla loolu la macha allah kontaan nañ bu baax wax dëgg yàlla góor gi sa wax dafa am solo ndax nit ñi boo gisee jamono ji kenn waxatul dëgg bi ndax li nga fi wax ni alxuraan ak addis la loolu kenn di ko toogee te yaakaar naa ni alxuraan mënoo tafsir ko weeru ko nga tafsir bopp ba jeex te programme yi nga wax yëpp nit ñi duñ ko si wax dafa ma jaaxal trop waaw dëgg yàlla kon gars yi tey li leen andiloo ñu bàyyi suñu bi mu tàggatoo ak ñi seetaan allah waa ñu ngi sant yàlla di sant yonent ndax yàlla mooy yónnee mais ba yàlla yónnee def na lim ko yónni te man lam yaskur naas la lam yaskur laax képp ku dul sant nit yonent ne doo sant yàlla te ki jara sant mooy ki ñu xamal yàlla muy Seydina Muhammad ñaareel moom dama ne àddina su ngeen bëggee bañ a am mbett mu raw ko corona bi na ngeen dellu ci yàlla di leen di jàppee julli waxtu bàyyi caaxaan waxuma laa po waxuma araam su ngeen bëggee mucc lu weesu corona dina am te bu ngeen sa bëggee mucc na ngeen dellu ci yàlla yàlla moo digle nit diglewul yonente la digal mu digal nu toppal yàlla ati xoo laa wa aati xoo rasool moo fi ne toppa yàlla toppal ndawam Seydina Mohamed bu diglee ngeen def bu teree ngeen ba su ngeen ko moytuwul corona bi ñuy coow di ci dugal lu ci bokk ak lu bokkul lu ko gën a leer dina ñëw incha allah su boobaa dellu ci yàlla lay dénk ku may wax du yéen toujours dama naan yéen da ngeen téye dëgg daj dëgg téye ko téye leen mu dëgg bu leen bàyyi xel ku dul yàlla bu leen bàyyi xel ku dul Seydina Mohamed loolu mooy mission Madiou bàyyi xel yàlla bàyyi xel yonent bi atta ja amrulaay ba mbir yàlla ñëw bu boobaa nag eh, ku ci jubaloon man nga mucc ku ci dëngaloon du kenn ku la mën a muccal ci àddina wala xum yéen soroon na yàlla nee na kenn du la mën a dimbali kenn ku lay dimbali taxawul ma ko suuf du am bon nag nañu dellu ci yàlla mbir mii di waxu daraja du du mbiri wax tur ut tur mbiri xam-xam bu jóge ci yàlla yonent bi nit ñi moom ko ñu war leen koo wax nit ñee ko moom moomuñu ko ku ne am nga sa baay am nga fooy dunde dundal si la yàlla xéwal nga jël sa santu baay te xam ne nag Rasuul laay kenn te bu yonent du am ginnaawam ko wax ku ne seytaane nga ak koo mën a doon koo mën a doon seytaane nga kuy moytu Iblis daa ko dégg rek bu la gisee na la daw seytaane nga loolu laay dénkaane اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولح والخاتم لما سبق ناصر الخاق بالخاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عليقي خاق قدره ومقدار قلاسه بوخولي بوبو جولي مو جيكا وانا يوننت كين لا تكنن دوتو لام كو ملني موم الفاتح لما أولح لي تجي مكو بيسي موم لا يالا جارالي مو ام مو جيل سي موم امال لب مصطفى الله الفاتحه لما اولها والخاتم لما سبقها ابي ينن تدور ام دخ موم تك نيك جيتون ناصر الحق بالحق مويور دغ كيغا خامني موي ديمبلي دغ دغ غوغو نك بوكو خسيت تي اماتور لوخ امول راف امول ركيلي ناصر الحق بالحق موي مصطفى كون بو فيري سات فاتحه صح خامنا كو خما دون واخ te moo ko xamal ki ko xam ndax moom lépp du ñëw ci ñun ci islaam doon lu say doon doole te jaarul ci moom mooy baabulaay mooy buntu yàlla mooy siraati laay sallallahu alayhi kon loolu lañ doon wax tey suma salaatu wa salaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa alihi wa ala alihi wa ashaabi wa ashaabil kiram ñu ngi sant yàlla di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ngeen am fan fan woo doon fanu diine te yàlla may leen wërsëg mu barkeel ngeen gën a liggéeyal yonent bi si li ko yàlla yónni woon allahumma salli ala sayyidina muhammadin xayra wara rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ah, macha allah macha allah kontaan nañ bu baax si dalal bu ñu dalaloon suñu Pape Omar Cissé di gërëm sama caméraman bi Ahmadou Tall di jaajëfal ñi ne si Kifne TV bi yëpp nag ak IFK rajo kon gars yi dañ leen wax bu leen fàtte di abonné wu suñu bi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah